bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jëkkal tey ndokkeel jullit yépp ci weer wi nga xam ne ci lañu génn mu tàggoog nun yàggagul lool mu doonoon jamono joj lu ca nit wutoon ci wéew rek mën na caa am lu ko ëpp loolu sunu borom moo ko dige moo ne woon moo ko moom te moo koy fayal boppam yim digle yépp yonent bi jàngale ne sallallahu alayhi wa sallam ne ku def nangam am nangam waaye weer wi nu génn nag moom yàlla nee na woon moo ko moomal boppam te mooy fayal boppam wutalu ko ab yàlla nañu bokk ci ñam tey fay weeru fàggu téef la woon it fàggu lu ñëwagut muy ëllëg am na ci jaami yàlla yi ñu ci jàmbaare woon lool ci wóor bëccëg ba taxaw lañ man ca guddi ga di jàng alquran di def salawaatu ala nabi di def lu baax lu nekk bis yi nga xam ne nag li ko tàmbalee démb mooy bis yi nga xam ne ñiy def wàññi ba ak rek la ba diw am na nangam am na nangam ci lay tàmbali yàlla na yeex a noppi lañ ñu bindal yàlla na yeex a noppi mooy tàmbalee démb jëm ba muy wax naan innama yuwaffa saabiruna ajrahum ak innama yuwaffa alaamiluun innama yuwaffa saabiruna ajrahum moo ne ci alquran bi xayri xisaab bi xayri xisaab waaye yàlla na fa njëggal tàmbalee di wéy luñ ca jëf yàlla na ko yàlla nangu la ñuy def digganteem suñu digganteeg moom ak li ñuy def suñu digganteeg moom te jaaree ko ci suñuy moromi jaam koor gi nag jàll na waaye jaamu yàlla nit mën na ko waxtu wu nekk fu nekk la ko yàlla digle ak ci nu nekk nu ko nit mane amut waxtu amut bés amut it fu nit di toll foo xam ne dañ naan wàcceel nañ ko ko bokk yi julli mi ci gën a ñor gën cee rëy famille demee bañ naan wàcc na nit ki kenn amutut ci moom yaakaar juróom-ñaari melokaan yi ñu wax ne kuy julli mënu koo teggi ba ca mujj ya ca mujj bokk ñett ya ca mujj ku fa àgg ci wérati ay bokkam dutuñ ci am yaakaar dañu naan su suy julli julli ay taxawaay la ak i jataay ak sëgg ak sigg su fekkee daa bëgg a julli ba waaj ba àggal la gën mooy mu taxaw temm ak i tànkam su fekkee am na ngàntul taxaw ak i tànkam waaye su wéeroo ci fenn dana mën a fa muy wéeru dana ko mën a gunge ci taxawaay ba na ko def su ca mënut lenn ci yaar yooyu na gàppaaw nga doj toog su ko mënut na wéeru ci lal bi wala mu wéeru ci fenn muy ñaata yeent taxaw temm wala taxaw wéeru wala toog temm toog jonn wala toog wéeru yett yee ca des su mënut ci yent yooyu lenn mu tëddee ak wetam nday joor xanaa tële dikk na waaye taxut julli wàcce ko mi ngi taxaw di ko xaar su ko mënut te mën wetu càmmooy mu tëdd wetu càmmooy su ko mënut te mën a jaaxaan mu jaaxaan foofu nag bokk yi ku fa àgg ci kuy ragal jarak li wér te war mooy amatut ci mu yaakaar kooku des na laaj ba xam nu muy jullee waaye day def day junjuro kooy ak su jot yi rek su ma nee julli nag yóbbale na bokkam yépp di ñoon nañ ko fi keroone buñ ne diw dañ koy tooñ bokk bokkam yépp la ñuy daw buñ tuddee julli rek jaamu yàlla yépp lay yóbbaale lislaam teg na ay ngant yuy tax mu taxaw nit nit ki ba mu mënaat waaye bu dee julli mi nga xam daal moo ci gën a dëkk ak nun fa ca nit di àgg ba mu wàcc ko moom kenn du am ci moom yaakaar moo tax jaamu yàlla amul benn waxtu woo xam ne dana wàcc nit ki li feeg mi ngi noyyi tey xàmmee nit ñi tey mën a junj ci ay cëram yëmut ci koor kese kon yu baax yi ñu ko doon def te jot ci tudd yenn yëmut ci koor kese kese kon luñ ca doon def nañ xam ne yàlla nañ ko séqaloon yàlla laa taaxuduhu sinatun wala naw du gëmmentu waxu wala sekkantuma di nelaw kon mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ne ee yéen nit ñi li gàllu ci yéen ci seenu loos lu ngeen ca àgg bu leen sàkk aw lay lu fa ne ci man-man rek na ngeen ko ca taxawe ndax yàlla mi leen gën a xam te sàkk leen kenn ku ne xam na la man te bu ñu ko mënutoon du leen ko sant yàlla du teg kenn lu mu mënut lu mu xam ne mënu ko daan ne bu ngeen ko tàmbalee def nag su ngeen yokkatu yàlla du yokkat ci di leen fen yaa ayuha nnaasu alaykum min al amali ma tutiquun fa inna allaha la yamallu xatta tamallu wa inna ahaba al amali ila allahi ma duwima alayhi wa in qalla li gënal yàlla ci li ab jaam bi def di ko jaamoo yàlla diggante nag moom wala mu di ko jaarale ci digganteem ak jaami yàlla yi te yàlla tax nee na la ca gënal yàlla mooy la ca gën a sax lu mu néew néew la nga ca man fexeel ba bu mu dakk kon bokk koor gaa ngi noonu ña ki doon jéem jàmbaar la yàlla na leen yàlla fay waaye ña ki sàgganoon ba mu jàllit yàlla tujjit buntu ba wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu kenn dem ba jàpp ne tëj nañ bunt yépp dara mënut a am nee na ku ci dem ba pasar pasare boppam israaf bu dee ci lekk mooy ñoq-ñoqal su dee lu baax lu nit war a def yàlla gàll ko ko mu sàggane ko mooy pasar pasare na waxtoom pasar pasare na dooleem waaye bu mu tax nag mu naagu ci ne yàlla moytu koo jéggal qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia innahu huwa alxafuru rahim kon fu waay tegoon tànkam ne wàññi ko bokk yi koor ak bokkam yi ponk yi nit di taxawe ñu ne gëm na yàlla ci la bokk ndax gëm yàlla ci xol lay nekk waaye day am lu koy màndargaal ci jëmmi nit ki gëm yàlla moomu nag munta ñàkk ci jaamu bi yàlla ndax li yàlla digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ña ko jiitu woon mooy ñu jaamu fi yàlla wa ma umiru illa li yaabudullah kon nit ki munta am noflaay wala xel mu dal te amul gëm yàlla ndax gëm yàlla lay toog suñ ko xuppee ne ko da nga def nangam wala ñu def la nangam bu amee gëm yàlla dëgg-dëgg du faale kooka day xam yàlla rek moo man waaye su ko nit ne soo deful nangam danaa la xañ loo waroon a amet day gëm ne maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baq gëm yàlla it la nit di yor fu mu jëm jëme ko fa mu wóor ko ne fii lañ fi jaar di jàll rek am na ko ñuy nekk te fam nekk kenn mënu koo tekki inna ila rabbika rujaa alladina yadunnuuna annahum mulaaqu rabbihim wa annahum ilayhi raaji'uun gëm yàlla mooy yoon wi mooy li nit di am yaari yoon leer ci moom nañ ñi mu tànn ca wenn su xamut bu mu cay tànn ndax am xelam ñurut it mën na séen ñoo xam ne mën na leen a doyloo mu topp ca ñoom ñu jaar ak moom ci yoon fekkee ña nga ca mooy fi mu al wax ci alxuraan inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura yoon wi jëm ci dëkk bu mag ba ak yoon wi jëm ci àll bi yoon wi jëm ci àll bi nag ku yurub gànnaay yurutub yóbbal munta daw daa war a teel a wàññi ko jaar ci dëkk yoon bu mag bi jëm ci dëkk bu mag saa su nekk ñaari kuréel mooy am fariqun fi jannati wa fariqun fi shaa'ir kuréel boo xam ne ñoom jaar nañ ci xàll bu mag bi jëm ci dëkk bu mag bi mooy aljanna ku dugg dutoo génn lépp nga fa ak kuréel bi jëm ci yoon wu ñal bi nga xam ne bii fa mu jëm mooy fu fii fiir kepp yàlla nañu ci yàlla musal li koy ràññale nit ki nag mooy gëm yàlla gu wóor gëm yàlla gu wóor moo ñu taxoon di waaw ñi doon woor moo leen taxoon di woor xam ne ñoom doon nga fa nekk ci seenum néeg waaye bàyyi nañ fa lekk ak naan nga ngir yàlla gëm nañ ne lu mu yàgg-yàgg dañuy tase ko waaye gëm yàlla it bokk yi ci la nit di taxaw gëm ne dee moom du ku ñuy daw dina musu sa mucc ci dee it na ko wër ne li fekk mi ngi dund yàlla dana ko wërsëgal lu mën a dunde kon lu muy dunde jërut ñaaw lu muy dunde kese jërut muy ñaaw mu ciy ñaaw ndax yàlla warlu li feek mi ngi nooy di dama ko dikk di am lu mu dunde su ko amut it dana am ñeneen ñu ko yàlla jox yàlla jaale ko seen loxo mu jox ko wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha li tax dee mu ni su ko daw mooy ne fu ngeen fu nit ki mën a nekk lu mu ruq-ruq lu mu kawe kawe ba nga xam ne sore naag nit ñi dëkk ci ay étage yu gudd ak naataxaatu saxaab lu tee bu dee ñëwee fa la koy fekk du ku ci yore téléphone di téléphone nit ki lu mu ruq ruqe téléphone bi dana ko làqar ci ba fekk ko fa xarala googu nit ñi sosuñu ko ci li yàlla bind ba noppi lañ ko jële moo leen ko dàq aynama takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada am na ay abraaj yu doon daanu ci at yële weesu ñu nekkoon ci kaw defe woon nañu luy jóge ci suuf mënul leen dara waaye ba dee jotee la leen dara ci kaw la leen jóge mooy buur bañ ne woon seetaloon moo tax seet wóoru da ngay it ko naan yëral ma te léeg-léeg nit yër ak ron wala mu yuqamti ko jom da ko ne yow sa bakkan des na tuuti dese nga tuuti ay fan waaye nag moytul ndox suuf ndax moo lay mucc mu defar lu mel ne jagaagal li ñuy wax jagaagal mooy tegu gëléem yi mag yooyu nga xam day mel ni néeg gëléem gu mag gu sori kaw dëkk ca saa bu demee ba nga xam ne wóor na ko ne gëléem sonn na ñu aj ko ci ak garab mu nekk fa te xamut ne xamutoon ne fàtte ne ne jaan day yéeg waaye jaan ji ko war a yéegul fekk ko fa mu nekk daa bàyyi ba mu ron garab ronu garab ca jagaagal gam gam yéegoon mu ne ko coppet ci am nopp mu xool ko ba mu wóor na ko ne jaan la mu ne wàcce leen ma ñu wàcce ko luggkat yi daw ñëw mu ne jëru ko loo xam ne bu mattee nit ci tànk ñu ne gaaw leen bële moo yéeg su tàmbalee ci kaw bopp ba fu muy dem du des du bàyyi fenn mooy aynama takunu yudrikumul mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada daan ne dee leen sédd ci seen noy yi dee di ko ci sédd xel naan ndax gii may noyyi geneen dana ca toppam rek te ci diggante yi nga fexe fexe ba def ci lu baax mu yóbbaaleel la ko loolu it ka fay nekk day fekk mu am gëm yàlla bu wóor moo ko waaye it ci gëm yàlla dëgg ci la nit ki di fabe ak dundam jaamoo ko yàlla waajale ko àllaaxira ja nga xam ne ku fa dem dutoo fa jóg waaye du fa mukk adduna jeexal ci ak dundam day fab dundam gi day fab addunaam jeexal ci ak jaamu yàlla addunaam yëpp da koy jeexal ci jaamu yàlla waaye du fab addunaam kese kese jënde ko àllaaxira ndax adduna lu ñu fi yàgg-yàgg dañuy mujj tàggoog moom kepp lu mu yàgg-yàgg nag moo tax fi muy wax ci alquran ne koo xam ne adduna kese kese moo ko ñor buñ ne ko gëm yàlla wala yàlla yàlla su naree su naree fatanqal noppam yi mu da mu far mu sakk ay noppam wala mu jóg dem yàlla nee na kooku jaaxaluma dama ko koy jox fii ba mu bari lool waaye ëllëg nag du fa am dara yàlla noonu yàlla musal ca loola. waaye koo xam ne nag dundam gi jaamu yàllaa tax nee na jafe-jafe yu mu fi mën a am nis tuuti mu faatu su boobaa lu néew lu mu fi def gannaaw saxaloon na ko ni ko yonent bi jàngalee. dana ko fekk mun a jóg ba ku nekk ñee ko wa man araada al axirata wa saa laha saayaha wa huwa muminun fa ulaika kaana saayuhum maskura am na feneen fi muy wax ne man kaana yuridu addunia nazid lahu fiha koo xam ne adduna keese la bëgg man kaana yuridu xarsa dunia nutihi minha wa ma lahu fi l axirati min nasib wa man kaana yuridu xarsa al axirati nazid lahu ba mu ne gàññ gàññ koo xam ne adduna kese moo ko ñor ak ku àllaaxira ñor kese seenu gu wute mooy ki àllaaxira kese ñor mooy ki gëm yàlla mooy koo xam ne weer wi ñu génn def na ca kem kàttanam la ca des mu bàyyi ko yàlla seereel ko ko keneen nit nee naa na tuub bu def jullit la weesoogul moo tax bokk yi boroom xol bi dund ci gëm yàlla dëgg lim yéene boppam lay yéene moroomam yonent bi nee na am kenn du am ci yéen gëm yàlla gu yàlla nangu mu jiital boppam teg ca keneen waaye day jiital ñëpp ci boppam danaan leen lu ma leen yéene yàlla naa ca jiitu laa yuminu ahadukum xata yuxiba li axihi maa yuxibu li nafsi waaye lu muy bañal boppam lay bañal ñëpp loolu da ciy feeñ dox ba yàgg ci mbedd mi mu romb loo xam ne mën naa jëm keneen moom gis na ko waaye keneen mën na ko bañ a gis mu toppale ko loolu su yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole ko ci sadaqaat jaariya yi waaye it toq gu mu am ci gëm yàlla yi day fexe ba kum xool ba wóor ko ne yow mii kat mën naa am bokk leen fi ngeen jaar dana la woo ci téléphone laa biire la soo ko nangoo déglu mu jóg ko tànkam ñëw ba ca yow du la bàyyi mukk ba ba ngay wàññiku wala moom bokk ngeen bokkutu leen fi ngeen jëm am du say contact waaye nee na jullit du def ne man daal sama bopp dong nga ma ñor su ma jubee keneen ñoruma yàlla nañu yàlla mos boobu pas-pas waaye kum séen nga jëm ci leneen it bu dee gëm yàlla nga ci moom daa war na leen nga taxaw leen foofu du fa suñu ko déggalee baax na suñu ko déggalu jaanam wàcc yàlla fay ko wal takun minkum ummatun yad'una ila al xayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun yàlla nañu yàlla sàmmal suñu gëm te di ko dolli saa su nekk te it bañ ñu ko gisloo gëm yàlla na fu mu nekk safaan ba dafay nekk safaanu gëm yàlla mooy ñàkk ñàkk gëm yàlla yàlla nu ci yàlla musal loolu nag mooy ab dalaal wal xusraan ku amul gëm yàlla dara saa su nekk mi ngi gën a di mi ngi gën di sori yoon wi jëm ci saadatul dara yi ak noflaayu ëllëg su ko defee bis bu bis ba accès lam jàppoon cim xelam naan ma gis ne ak man jàpp naa ne ak man foog naa ne su boobaa dana xam ne jëm fañ joxoñoon rek moo moo mooy li gënoon waaye ana lu cay pexe booba amatul pexe réccu rek a fësës loolu nag dana dal nit kenn dana dal nit koo xam ne daa jiite waa këram waa kër nag mën naa weesu ñeenti koñ yi wër këram képp mbedd ma sës ca moom waaye képp koo xam ne su waxee mën nga koo dégg bu jàppee ne ci sa waa kër la rek ci sa waa kër nga koy boole kooku it mën nañ ko taxawal ëllëg ne ko ne ko sa waay lii nag mu ne kii kat buñ lu mu ñu waxoon ñu def ko waaye waxuñu dara am na fi alxuraan di wax hada yawmul fasl alladi kuntum bihi tukadibuun loolu mën na koo wax ak ñi nga xam ne doonuñu sax ay jullit waaye liy taxa doon jullit ak li koy teye doon du ci jëmmi mool bi yàlla mool ci nit ki ci xol bi lay doon li muy fas ak li muy fecc dem ba yàgg ñu ne xinnet ne hada yawmul fasl lii kat ndekitu yoo mooy bis bis bañ ñu daan wax gaa yi ne nga ne kon de ay am na ñu ne moom la de ndax diwa nga nële dañ ko daan dégg diwa nga nële ñu daa ko dégg mu mel dañoo doxale lii ñuy def ci fi ñuy seete rabi àll yi dañuy def ay ndongment ñu nekk ne nga di leen gis weer bu mag dox sa diggante ak ñoom nga xam ne man mën nay ñëw moom ba ci miir bi mu defee nit la seen te wax na dëgg nit la seen waaye daa am dox seen diggante nga teg sa loxo ci gémmiñam gi te fekk miir bay dox seen diggante miirub weñ miirub weer am na fu alquran di wax ne yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lilladina amanu nuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba baynahum bi suurin lahu baabun batinuhu fihi rahma mooy miir boo xam ne weer lay doon ngay gis ñee ñu ne ci xéewal yu rëy di xàmmee seeni tur waaye koo ci wow du la dégg ndax mi ngi mel ni nga tëj sa weeru boota rek nit di wax ak yow ci biti da nga ko gis muy leer nga gis gémmiñ gi waaye doo dégg li muy wax yow soo koy tontu mën na ko bañ a dégg ñu xam ne hada huwa yawmul fasl ci la yàlla di wax ne ahshuru alladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim suñu dem nag dañ naan yàlla keekat bu demee danañu jaax ndax iman gee nekk ci moom ak cëram ya làgg ci jaamu yàlla suñu ko digaloon ñu def ko yàlla ne ah moo ne loolu li ñu wax di wér na de mu gën a xam ñëpp lépp waaye atte dafa am lu mu laaj yàlla ne ah kon waqifuhum gaa yi bu ñu demagoon waqifuhum innahum mas'ulun kon bokk mas'uliya mas'uliya mooy war téef ci kanam la nag dëgg-dëgg du koo xam ne day tiit rek ndax am lent nag diw ak diw rek woote nga ñëw lijjanti ko déedéet des na ca kanam foofu nag la fay jëm neex a lijjanti mooy imaanun saadiq gëm yàlla gu dëgg du ànd ak jëf mooy fi alquran di wax ne al mulku yawma idin lillah yaxkumu baynahum falladina amanu wa amilu salihati fi jannati naim booba bu boobaa kii teg ndawal di teg kenn la huwa allah na ngeen gëm ne yaxkumu baynakum dana leen atte atte bu maandu boo xam ne du la laaj ngay wax ci saw làmmiñ di lay wala nga wutub layooka da ngay diggoon diw moo koy layal fii lay yem bu amee ku lay layal ëllëg it say cër lay doon yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum su bëggee xuloog ñoom moom jëmm ji li ma shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay'in wa huwa xala xalaqakum awwala marra yéen nii ngeen may def te noo daa ànd ñu ne déet sa xol bii kat daa amutoon iman dëgg-dëgg munuñ ca woon dara te ñun foo jëm ñu jëm fa waaye dañ ñoo laaj tey antaqana allahu alladi antaqa kulla shay ñii sam ak di ñaxalaka def yépp ak mboolem nu bàyyi ma di man di waxe yàlla nga koy dégg wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu waaye nag lam ca teg mooy ñi nga xam ne amuñu dara ci iman buñ ko amee itam daawut fer ci seeni cër ba nit ñi mën koo xam man leen a seer ëllëg mooy ñi muy wax ne dañ ko doon jéem a randal lu néew néew walladina kafaru wa kaddabu bi ayatina suñ ne alquran nee na mu tëë dakk ñu jóg dem wala ah fàtte woon naa ko dama amoon rendez-vous ida dukira allah waxdahu zmaazat qulubu alladina la yuminuna bil axira foofu tibna fi iman wa ida dukira alladina min dunihi ida hum yastabshirun yastabshirun sooy waxtaan leneen nag loo xam ne daay dëppoo ak seen bakkan mën nañ ne fuuteet mu mañ soloon te dañoo waajoon ba ñuy ñëw bu doon seen sago mbubb mañ ëndaale woon moom la ñuy delloowaat waaye dangaa jot seen bànneex kese waaye ida dukira allahu waxdahu yàlla yàlla yàlla isma azzat seen xol yi fudd ñu ne fàtte woon naa ko dama amoon ndiw wala wax ji daa yàgg wala kii saa su ne loolu lay wax dafa metti wala wala ba mujj mu tayal te keneen nag moom it bu ko dégloo mën naa jóg ni moom ñu ne ko wax nga dëgg de mu ne diw yow fii du sa place ñun yàlla lañ gëm diw lañ gëm suñ diw lañ gëm mu ne suñ diw moom ñu gëm da tax ñu gëm ko ñoom gëm yàllaa tax bu sell ba mbooloo topp ko di ko roy waaye ci biir gëm googu ci la tànn yoonu boppam moom yal noonu yàlla musu si bopp pas-pas kon mbokk yi imaan mooy li mënta ñàkk lenn ci dundu jullit bi du lu ñuy wax kese ci làmm doonte lay tax nit ñi xam ko ñu ne ab jullit la mooy mu ñëw ca mbooloo ma ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah su boobaa ñu ne si ñun la bokk waaye liy firndeel baat yow yu génne ci xolam su fekkee ci xol ba la génne mooy su jullit yi def mu def na ñoom bu ñuy bu ñu noddee bu ñu waajee mu waaj ca wàccaayu julli ñëw ca fañ koy defe wala bu fekkee moom rek ka fa nekk mu xam ne ki muy fekk ca mbooloo ma di ko ko seereel muy subhanahu wa taala mi ngi fii ci néegam bi wala mi ngi ci ruqam su boobaa kenn ne fa ak bañ faa nekk lay yamale su ko tàmmee ba tàmm ko su koy def ci mbooloo léegi na sax ci mbooloo lay nekk day gëm ne bu nee allahu akbar yàllaa ngi di koy dégg te di ko di ko tàmbalee nattal soo gisee ñuy wax ne wax lu mat a bàyyi xel la nit ki lim xas ba wax daa war a feeñ ci ay melokaanam ci ay jëflanteem am na ku ko tënk ni al xurru xurrun maa lam yatakallam mooy asgor moo moom boppam li feeg néew danaa wala duma su nee danaa wala duma nit ñee ko moom léegi ñoo koy àtte te laqad sami'a allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqirun wa nahun wa nahnu agniyaau sa naktubu ma qaalu danañ ko bind lañ wax dañ koy bind mu toog bis ñu di leen xaar a àtte kon boog wax daa war a méngoo ak jëf moom la suñu Ibdaal waxoon ne koo xam ne waxi daawam ak jëfi renam natt kooku muy benn sooy wut nit ñu tënga googee sooy wut xarit xarata googee kon boog jaam bi yàllaa koy atte ëllëg ñëpp fekke yow mu tub la sarair waaye war nañu yëg ak gëm yàllaam ci li ñuy def mu di ko def tey waxe ni ñuy waxe tey siq ak ñoom ni mu war a siq ak ñoom xam ne jaamu yàlla la ko siqal mu bàyyi xel ci ñoom ci yàlla yàlla noonu yàlla may ñu fekk ko déwét ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñu ngi daaw woor ko ni nun te yàlla fekkelu wu leen ko ren yàlla na leen yàlla yërëm seenug yaafus nag yóbbuwu leen nun ñi fi des it sunu njàmbar bay wunu ak sunuy pexe waaye nag yàlla nañ ko fekkee tam ànd ko tam lañ ca jotagoon a def ak ku si jotagu si néew bu ngi doon suñ seere ëllëg it yàlla na doon seere soo xam ne si waxuma ñun ñi koy seereel waaye ku ñu xam di wëllëre di xarit wala muy mbokk mu jege wala mu sori dana ci siggiwaale moom xam ne waaja naxuñu woon keroog yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin